waaw tuxum cigarette de moom dafa nekk lu nga xamante ni moom daal lu lu nga xamante ni daal du rafet la parce que soo ñëwee fekk ay mbooloo toog da war a déplacé wu dee ne yow toxkan da nga war a déplacé wu nga dem toog fee nga dox bu pare doog ñëwaat toog si mbool parce que cigarette bi ngay tox ci biir nit ñi xamante ni tuxul ko parce que soo xoolee moom lay gën a sonal sax si nga xamante yow mi nga xamante yaa ngi koy tox parce que moom tuxul ko yow mi nga xamante ne tàmm nga di ko tux sax amaan na mën a def problème ko su ko ko xet duggee rek mën na koy jox moo xamante ne yoon la ñuy respecté ko parce que loi boo xamante ne la pour nga ñi dimbale ñoo xamante ne tuxuñu loolu la pour moi moo tax ñu ko ñu def ko waaw moo tax nag loolu moo tax ñu war koo respecté dañ ko war a respecté pour mu jógee fi du yomb parce que su doon ne bëgg neen mu jógee fi parce que suñ ko appliqué dañ ko war diko maam di am ñoo xamanteni dañuy dox ci biir nit ñi sax di xol ñi nga xamante ñoo ngi tok ci biir nit ñi ah ñu am daan ñu leen teg waaw see defuñ lool rek manam pour mu joggé fi du yom kuñ fekk ngey tok ci biir nit ah amana moy buñu fekk ngey bëss di ñu nit maanaam ñu tok ñu wo la police ñu waxtaan ak yow wax la nak ya nga xamante daan yeen mo la ci wara mo la ci wara fekk ah ba nga xamante yow bu ëllëgé di nga respecté liñ la wax non ba xam ne bu ma police fekkee fii wala bu ma kii ndaw li nga xamante moom lañ yebal pour mu ñëw si kii nit ñi pour xool li ñuy def man bu ma demee police daan ni ma ciy fekk. baaxul si yaram baaxul si santé baaxul dara man bu ma si biir nit ñoom nit ñoom dañ ko da nga xam ne carrément li ngay def nii daal yoon wala mbëgg abal la xam naa moom mbiru si daal man ko daal te bëgguma ko is waaw xanaa jéem a ñaanal ñaanal ñaanal yàlla rek jéem a bàyyi ko te xam ne tox moom baaxul daal baaxul yàlla baaxul sànq loolu moom bokkul si xel moom waaw loolu moom bokkul si xel rek client kees gi lay dox di xaraar en même temps loolu daal di yoon waxatee daal. loolu dama gis ni mooy loolu affaire boobu du yoon parce que professeurs yi nekk ci école bi di jox loolu du yoon parce que loi publique la ñu wax comme si hôpital yi comme si école da ngay dem fenn gis nit toog quoi nit toog def lu ko neex ah, parce que fekk na ñeneen ñi toxuñu toxaale te loolu baaxul quoi mën na am nit ki yàqal parce que nit ki toxul mën na toog mën na toog sax yow nga dend ak moom du toog jàpp ni yow la fréquenté wala affaire yooyu noonu affaire baaxul quoi parce que élèves tamit buñ doyee waar tamit bay topp yoon boo xamante ni mooy yoon parce que mais loo gis tamit daam jur lañ ko gisee rek mën na dañ koy gis nit di ko def comme professeur yi ñoom élèves ñu bëgg dañ koy def man moom man mooy loolu nekk na ci man ñu may àndal affaire yooyu mais am na loo xamante pour ñeneen ñi quoi am na ñoo xam ne ñoom defu leen kaa dañ koy ñëw ay complexe moo nekk benn gang def def nga da koy def par force affaire milieu public bi nekk comme ça parce que des fois y a des gens asthmatiques mën nga gis nit mu asthme en plus taxaasu noonu di baax ci moom en euh, aussi ñuy jaay cigarette devant les boutiques à 200 mètres loolu tamit day yokk tax élèves yi ñuy dem di jënd di dux te loolu c'est pas normal moom warta nekk di di dux loolu dañ ko war a interdire ah Sénégal da ak moom mooy loolu kenn respecté dara dañ koy wax mais en duñ ko jëfe dañ koy wax nii rek mais duñ ko jëfe loolee seen problème Sénégal moom lu neex lay def ah autorité yi war nañ ko respecter en plus les gens aussi war nañ ko mën a respecter parce que tamit yaakaar naa ne fi Sénégal la te loi buñ ci proposé nii lañ ko war a jëfandikoo dox mais da ngay gis ñoo xamante ne duñ ko def daal duñ ko jëfe ko waxe mooy loolu dañuy def leen neex loolay problème bi nag